actuellement dañu ko occuper de manière anarchique ñoom jaaykatu jën yi à chaque fois dañuy waxtaan ak ñoom depuis plus de ans ñu ngi daw seen ginnaaw parce que yaay lañ suñuy sœur lañ vraiment jéem nañ def diplomatie bu ñu man pour waxtaan ak ñoom pour que ñu jóge fa mais malheureusement à chaque fois dañuy jéem a diirante mbagg ak ñun jéem nañ def lu ne nag parce que suñu wax dëgg bëggul coow bëggul benn problème mais à un dañu war a parce que tamit ñi nekk si biir ñoom ñi ne si biti gënuñu leen te ñoom ñooy fay au niveau de la mairie dem nañ ba benn instant nangootuñu fay parce que nee ñi nekk si biir bi mënul leen dara à un moment donné force reste quand à la loi te ñun on est là pour représenter la population tey quelques personnes rek mënuñu xañ plus de 130 000 personnes ñu mën a def li ñu war a def moo tax ñu ñëw vraiment dëgërpir leen si kër gi nga xamante ne fa la def seen frigo yi borom kër gi moo ñu defar une lettre ne ñu kër nañ ko mairie bi pour que mu mën si def wax nañ leen dañu récupérer seen frigo ñu bañ ñun ñu ñëw fa récupérer frigo yi moom mooy indi coow li mais problème bi dëgg-dëgg mooy que ñoom daf leen intéressé wul à ce que ñu dugg si biir ci biti bi moo leen intéressé parce que ci la gën a jaay mooy gën a gaaw si ñoom ñu pare dem seen yoon loolu nag actuellement ñun suñu mission mooy protéger ñi nga xamante ne mooy les contribuables ñi nga xam ne dañu am seen place di liggéey correctement ñooñu a protéger non malgré bu ñu saisir saa su ne da ngay ñëw mairie nga xool bu moom dañ koy sànni bu dee matériel bu baaxul loo xam ne frigo yuy gaañe ki demee noonu dañ koy sànni bu dee lu baax la bu ñu ñëwee dañ ko mën a récupérer